yàlla jaadu na te sax nag li gënoon mooy ñu di ko def ay bés bu jot ñuy gàmmo di màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom nag ni mu ko daan defee mooy daf daan woor pour sante ko boromam mu mel ni loolu ba tey day continuer sunna la te bokk ci sunna yi gën a kowe altine bu jot nga woor ko ak alxames bu jot ci ay bés bu ne loolu sunna la e, su ko defee tam su fekkee ne dem nañu ba aadawoo ne bés bi mu judd woon su jotee ci at mu ne ñu war a dajee boroom xam-xam yi dajee ak ñi xamul siira su yenent bi jaar jaaram ñu toog waxtaanee eh, sang boobu jaar-jaaram sunnaam si eh, mbaaxam may yi nga xam ne yàlla may na ko ko te jublu ci jaamu yàlla eh, jublu ci nit ñi man ko xam ndax nit la koo xam ne nit du ko xam mag mukk te bugguloo ko yonent bi moom sallallahu alayhi wa soo gisee ku ko bañ rek eh, su la neexee nga àtte ko ne xamu ko waaye xam ko ba pare bañ ko mu mënta am waaw ku ko xam rek bëgg ko te ku ko bëggit li ci tegu rek mooy topp ko te ku ko topp texe eh, su boobaa kon su waxtu wi jotee nga xam ne noonu la ko mag ñi daan defee sunu sëriñ si ñu jiitu noonu lañu ko daan defe ñu nit ñu roy ci rekk ndax diine ji diine roy la bi ñu xamee diine ji ba tey royuwaay roy moo ko yóbbu ki nga xam ne nag moom la ñépp di roy kenn la mooy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wante yonent bi eh, ndem jëmmam nekkatu fi ak nun kenn mënuta dem ci moom daay rekk waaw loolu duhatul lu yomb ndax gisatuñu jëmmam kon ni ñuy def rek mooy ñi ko fi toogal te mooy boroom xam-xami diine yi nga xam ne dañoo sellal te jubal eh, ñooñu lañuy takk suñ bopp di leen roy ndax ku leen roy di déglu seen wax ñoom ñu lay royloo yonent bi ñu ngi lay toppaloo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa suñu demee nag ba nga xam ne ki ngay roy boppam boppam la lay royloo walla boppam la lay wan su boobu nag kooku du royuwaay waaw boroom xam-xam bi nga xam ne royuwaay la mooy ki nga xam ne day takk nit ñi ak ki ñu yàlla dig ne digal ne nañu takk suñ bopp ci moom te kooku kenn la mooy sang bi Moustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walakum fi rasulillahi uswatun xasana loolu la alquranul karim wax liman kaana yarju llaha wal yawm al axir képp ku bëgg a texe ëllëg ne force rek mu mu roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënta am ngërëmal yàlla kenn mënta dem ci yàlla kenn mënta dugg àjjana te royuloo Moustapha te kenn mënu roy lu dul nga sopp ko te kenn mënu koo sopp te xamuloo ko te kenn mënu koo xam te jànguloo ko kon nag jotaay yi nga xam ne ci lañuy ñuy jàngee yonent bi di ko di wane taaram di wane mbaaxam e di wane jikkoom yu rafet jotaay yooyu dañu ko war a baril te dañ ko war a fonk te nañu xam ne sunn la ñu di ci fagaru bu baax a baax a baax dañ bañ ko yàq nag bu ñu ko yàq ndax xëy na sax eh, benn benn bi nga xam ne eh, te loolu it yàggul waaw benn benn yi nga xam ne dañu koy def ne bidaa la maanaam duhul lu baax xëy na eh, yenn jëf yu matadi yi ci rot xëy na moo tax ñu di ko wax donte nga xam ne loolu it loolu itam sax jarut ñu war a yàq jëf ji ndax jëf su fekkee cosaan la dafa wér e su ci dara ajoo lu baaxul nañ ko fexe ba faxas ko te jëf ji continuer waaw continuer di baax su ko defee comme que nag waxtaanoon nañ lu doy ci bunt boobu ah li ci des rek mooy ñu dugg nag ci gàmmu gi ñu waxtaan ak yéen ci kan mooy Moustapha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi nag suñu ko bëggee xam ci boppam la ñuy dellu danañu dellu ci yàlla dellu ci yonent bi ci boppam su fekkoon ci ñun la day firi tagg sa bopp wala day firi wanehu waaye su fekkee ci yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam du doon loolu parce que moom yàlla daf ko yónni pour ñu roy ci moom mu war ñoo waxal boppam moom mooy kan war ñoo wax lépp lu muy def lu tax mu di ko def wala sax jarut ñu xam lu tax mu di ko def waaye na ko def rek ndax moom lépp lu mu def noonu la kon tellu ci yonent bi mu waxal la moom mooy kan loolu sharia la te loolu noonu la sharia tëddee noonu la ko sunu borom subhanahu wa taala bëggee ci loolu danañu wax ne yonent bi mu ngi bokk ci doomi àddinaan yi waxoon nañ leen ci suñu programme bi passé ne borom wëy wa boole na ko ci ñaari bayit wala ñett ne abaau sayidil wara ala rutab huwa bnu abdillahi abdulmutalib wa haashimun abdu manafin wa qusay ثم كلاب مرة كعب لؤي وغالب وفهرهم ومالك ونضر قل كنانة كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس ومضر نزار معد عدنان يعني نيو إمامي ينتبه صلى الله عليه وسلم ينغا خمنا فلا نمنا يم واو لما تخيين نوي كديد نينا نيو كوباس عدنان رك نسوكو نيمي نكو وخو دغ ناخ بروم خم خم يي واخو نيو سي دارا لير نكا لاي كونتيني مانا امو نيو ben xibaar bu wér ne keneen ki ci teg gannaaw Adnaan wér na ne maami yonent bi la wala duhut maamam su ko defee kon ñu yem foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis boo xam ne imaam muslim moo ko solo ak imam ahmad ak tirmidi ta toxal ko ku ñuy tuddee waathila ibn al asqa radiallahu taala anhu nee na yonent bi waxal na boppam ne inna allah istafa kinanata min waladi ismail واصطفى قريشا من بني كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم لولو واخو يونت بلا صلى الله عليه وسلم نينا من اه ابراهيم موي سما واو ابراهيم عليه السلام ميغا خامن موي نجيتي امام موحدين مبولم كوي ويتال يالا امام والبوك نبي الله ابراهيم mooy sa njiit ndax jikko yi euh, jikko yi su leen jikko yu rafet yi su leen nit boolantee toujours euh, danga gis bu mu gën a siiw waaw yàlla pour mu wane ne diine ji yi toppante la euh, dafa digal yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko na topp maamam ibrahima alayhi salaam waaw mu ne ko ittabi millata ibrahima xanifan waaw loolu daf ñuy jàngal ne e, e, forcé rek ñuy toppante waaw bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam it forcé ñuy toppante koo xam ne yaa toog ci toogum bi ñépp dañ la war a topp déglu la kenn warta uuteeg yow ba noonu bi ñu demee ba mbir yi jaxasoo ba nga xam ne kenn jiiteetul waaw te loolu fi lañu ñu toll mbir yi dafa jaxasoo ba kenn jiiteetul waaw amut benn jëmm joo xam ne ci àddina bi jullit ñi moom la am ne kii mooy royuwaay bi kii moo jiite jullit ñi su waxee ñépp noppi su diglee ñépp def su teree ñëpp bàyyi loolu eh, yàlla nattu nañu ba amul ci àddina bi waaw duy am sax ci réew wala mu am sax ci dëkk waaw loolu nattu bu rëy la nag ci diine ji waaw nga ne eh, amuñ lu ñuy tuddee eh, waxdatul marjaiya maanaam kenn koo xam ne fi mo ci moom la ñépp di dellu te loolu feeg diine amu ko eh, nekk benn dafay jafe waaw déggoo dafay jafe eh, loolu eh, cooj bi moom yàlla dimbale na leen ci boor ba ñu tane ñu ci